salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee Lutte TV point com déplacé Dakar ñëw fii tey ci Joal fekk fi koo xam ne kilifa la ci Sénégal waaye kilifa la ci làmb ñu koy wax Mouhamed Ndiaye Robert di suñu baay di suñu maam ñu fa yéene seex ak moom waxtaan suñu papa Robert wala suñu maam Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. mu nekk li ngeen def nii euh, neex na ma trop parce que kooku moom yoon la quoi yoon boo xam ne moom bon parce que euh, daanaa toog sax. ba suma supporters yi di wax ne gars yi ñu ngi introsé gars yi te kenn du ñëw di la introsé ak yooyu man ko nag affaire boobu sax dama ko doon bañ ak yooyu quoi moo tax ak yooyu. te bëre ba bàyyi bëre suñu papa ci lan la nekk fi mu nekk nii wala dafa toog nii ci piliane bi rek moom. non man xam nga man dama doon kii dama doon bay dama doon bay di ki ak yooyu léegi nag comme léegi euh, toog bi ma toog nii buñ ci yaakaare sax ne man neex na ma neexuma ko waa ñàkk kii rek parce que xam nga comme xale yi dem nañu ne bu mu ne ma daal léegi daal yaa ñi jul da ñu war a bàyyi nga toog nga bàyyi ñun ñu jël sa place ci mbay mi ko quoi waaw ñu seet kii waaw. mais bu ma bëggoon a xam say combat. say combat tamit bëggoon nañoo xam suñu papa Mouhamed Ndiaye ay combat ñaata combat ci la toll. maa ngi bëre 137 combat ak 7 défaite ak 12 match nul. 137 combats 7 défaites 12 matchs nuls. waaw moom laa bëree quoi. jamono ji ngay bëree mënoon ñoo xam yan mbër ñoo gënoon nekk say wujju ci làmb. non ñu ma doon bëre kañ moom am naa moom kii nañu parce que mbër yi dañu bëri parce que am na mbor yi nga xam ne bëre naa ak ñoom mais waroon moon bëre ak ñoom mais nag lu tax ñu. gaa yi boole ma ak ñooñu dañu bëggoon a yàq euh, suma carrière quoi. te Yara àndul ak àndul ñoom parce que <clears throat> mbooloo bi ñuy wax Bécaye Deye bu Thiarogne daan na ay suñu mag yoo xam ne moom dool leen ba foo dañuy jógee ci képp ñooñu foofu la ñu jógee rek feebar ba dee waaw yaa ngi Bécaye ba bëre ngeen Bécaye Deye waaw bëre nañu premier komba bi dañuy bëre euh, dama ko door ba docteur bi ne moom arrêté combat bi nekkoo daal mënatul bëre bon léegi ñu arrêté combat bi léegi nag euh, dimanche bi nga xam ne moom mooy tegu mu ne pour ñuy defaat revanche mu ne parce que keroog bu may bëreek moom arène sénégalaise mu ne dama daw. daw moon nag man xam nga parce que man xam naa ne moom bu ma bu ma jotee ba tey ma daf may rey bon léegi mooy bëreek moom comme boxeur rek jeu de jambe ak yooyu quoi. bu bu fekkee ne moom bu may kii nii bu kii rek ne ko tap tap dem dari fale bi ma ko dooree door a door ba xam ne moom nag njëg na fu ma taaw noonu rek mu ñëw mu ñëw bu ko ma fekk ma foofu pour jàpp ma ñu su may gul peñ loolu la bëggoon te man kii ma loolu bu ñëwee fi ma dem taaw fale léegi nag ñu bu dee ñu nag mu ne nag pour ñu def avance arène euh, fare stade euh, stade Iba Mar Diop ñu dem waaw parce que yi xam na moom moom kay xam nga moom am dafa moom supporté am na moom bëgguñ ma kii léegi nag ñu defal ñu barrière barrière bi ñuy defal daal barrière bu tuuti comme dem mu ne comme man dama doon daw arène sénégalaise ñu def barrière bu tuuti. léegi nag bu ma ñëwee ba gis euh, barrière bi maa ngi wax suma gars yi ma ne ko ñi ma àndal mu ne ma ñi ñëw soxor ñii daal yaakaar nañu daal bi kaay daal pour mu rey ma rek lañ lañu bëgg quoi mais du demee noonu de. bon léegi moo wax gars yi bi ñu demee dibaadi bi ba pare. bon ba arbitre bi euh, soufflé bu mu soufflé ma signaar mu dugg suñu diggante ma ok na suñu gars yi. nga xam ne moom ma doon jox euh, kii bi quoi safara bi quoi ma ne ko bu ngeen tiit kii kañ ko kii dama koy daan daan bu gaaw bu gaaw bu gaaw. parce que euh, am na lu ma gis ci moom te xam naa moom dina ko def. parce que boole dafa yaakaar ne nag boole bi li may bëreeg moom bu ne bëreeg bi ñuy bëree woon euh, arène sénégalaise moom laay bëreeg moom mais dafa yaakaar ne nag beneen laa indi léegi nag bu ñu demee ba arbitre bi ma ñëw arbitre bi mu ne moom ndax pare naa ma ne ko pare naa mu ne pare nga bi kaay mu ne pare naa mu souffré bu mu souffré rek ma commencé nag indi li ma li ma kii yoon ci ci bëree bëre. ma commencé dikki ak yooyu ba mu defe ne moom rek ma fekk ko foofu ma fekk ko foofu songo ko jot ñaari tànk yi. kii bi dama jot nii jël sama bopp bi tëg ko ci tënn bi fii daw ak moom dañuy daw a daw ba sori rek muy gëstu fa muy daanu damay daanu ba toog ci kawam jàpp ñaari loxo yi nii nag ma jàpp jàpp ñaari loxo yi xam nga lu ko jàpp noonu ba ma ba ma jóg ba ma jóg di ñibbi mu <laughs> boo jàppaloon ñaari loxo yi lu mu lay def moo fekkee ne moom jàpp ma woon ñaari yi ndax ma bàyyi ko noonu jóg day jógaale tee sama ngëmb bi ñu suma fi ay kurpañ balaa gaa yi ñoom mu eskante ma léegi nag ma daan ko ba pare toog ci kawam ma téye nii de ba waa ji nga xam ne moom moom ma jox safara bi agsi na ba téye ma rek ma daal di jóg rek daal di daw mel ni avion. léegi nag ñu jox ma Malick Niang. Malick bi ma koy ñaan. yónnee na nit ñi na ko est-ce que laajal Robert moo moo ma ñaan. nit ki ñëw laa mu ne ma Malick mu ne dafa ne ndax maa ko ñaan pour mu mu bëreek man waaw ma ne ko waaw kon léegi nag ñu bëri arène sénégalaise mënu ma jot léew-léew xam nga def naa boxe def naa judo karaté aikido self défense yëpp def naa ko man ma ko ne tap tap daal di def jeu de ma jot mais bi ma ko songee ba jot comme ni ma defoon kare bi ma songee ba jot ñaari tànkam yii sama boobu bi ma teg ko fii ci xolam fii da wax moom rek muy gëstu fu mu daanu man toog ci kawam jàpp jàpp loxo yi. ba ki ma àndal ñëw ak albit bi ma bàyyi ko daal di génn waaw. léegi euh, bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ci làmb tey nga am ay doom Ablaye Ndiaye di ak euh, Mbagnick ñoom seen taxawaay ci làmb noo ko gisee. su ma doom lañu déggal nañ ma li ma leen wax daal loolu lañu kii parce que xam nga làmb dafa doy waar xam nga sa doom ji bu dee ngay jóge fii di dem seetaan yi seetaan seen làmb. dafa dangereux ko léegi daal bu fekkee ne am nañu combat dama leen bàyyi ñu dem. demal seen bopp bu ñu demee fi ma toog nii am na li ma war a liggéey pour pour ñu waaw. ñoom ñett kan nga yaakaar ne fi mu nekk nii moo ji war a mën a jël sa place ci làmb ji. non fu mu nekk léegi am naa mbañik moom kooku moom am na jabar Ablaye ñu gëj ko gis tamit si lamb ji euh, gars yi ne ku mel ni rëg-rëg wala ñoom faraa tax ñëwatul ci lamb ji loolu loon ci mën a wax mooy lan non Ablaye dafa gaañu woon gis nga combat bi mu mujjee boole waa ji naka la tuddati sax Gris 2 waa Gris 2 dafa gaañoon dafa gaañoon daf ko gaañoon ci baaraam baaraam boobu nag moom lay faj mais nekkul lu mukki ak yooyu loolu am fi ay mbër yu nekk ci làmb ji lit simple bi di bëree fi mu nekk nii su ku ci mel ni rëg-rëg surtout kooku buñ la laajoon taxawaayam noo ko gisee fi mu nekk nii ci lamb rëg-rëg man bu fekkee ne ma léeg nu mu toll nii bu fekkee ne moom bokkoon na ci suñu classe du du du du kii du du du du bëri du bëri supporter quoi. bu doon jamono yi ngay bëri. man bi may bëree. kooku pour nga daan ko c'est facilement mais gars yi xamuñu. ah Reug Reug yomb naa daan. moo gàtt ak ux. daal ah, yi ne ñëpp fi mu ne nii ñëpp dafa tëj ñëpp kenn mënut ci moom dara. sabab nit mun nañu dara xam nga lu nekk ci affaire bi yëpp yooyu ki mu xew yëpp ma xam naa ko xam nga léegi rek dafa tabe fu mu bure bu ñuy bëree foofu mu bëree ba ba daan ak yooyu ñooñu dañ leen di may xaalis may jigéen ñi xaalis may góor ñi xaalis loolu lay def waaw te encore moo tax bu amee combat ak séeréer séeréer yi ci boppam ñi war a faral seen mbokkam di ko faral ci moom la ci moom la ñu kii waaw loolu la. loolu mooy problème bi quoi mais kii bu tomboon ak temps bi may bëre fii ah. kon ba tey ko. mu bu yàgg bu yàgg ah. am na keneen koo xam ne newoon na ci làmb yi nga daan ko indi mu bàyyi làmb Yékini ana Yékini laa lay laaj. non mu ngi fi de. yéen a ngi gisante wala. ah lu ñuy gisante moom maak moom jubóotuñu xam nga dulkat yi rek fenkat yi rek mooy yàq bu kii ak yooyu ba mu gis si boppam daal di dem kii am mais man jotewuma ak moom kii wuma ak moom. ñu daan gis saa yu bëree yaa koy ngem ba indi ko ci làmb ji ba mu bëree ba ñibbi te euh, maanaam ngeen mën a am problème loolu nu mu mën a demee su to papa. dama ko doon dimbale rek. mu toog ba ba am combat. kii euh, suñu waa ñu nekk fii. déedéet kii kii siniñam Mansour. waaw Mansour siniñam la woon. léegi nag mu wax ne maak Mansour dàq nañu ci ci seen seen ci seen groupe bi quoi buñ daal buñ ñuy àndat rek ñoom quoi ci nañ ko bàyyi. loolu kañ la woon. non depuis ci combat boobu mu bëre te ñu daan ko. bi mu bëreeg Balla Gaye. waaw. Ah, bi mu bëreeg Balla ba daanu ci la loolu am. waaw yow daan ko ni mu bëree daanu dàq la yàgg yàgg Mansour. waaw mu ne daal daal euh, bu ñuy dugal ci seen ci affaire yaayam bu mu laatee bu mu laatee def ko wax ne oo ko bu mu ñëw mu ne ma ko ngóor si bu ko caaxaanee. moom man xam naa ne moom mu ngi lay dimbale te saytaane dafa bëri doole mais nag mais bi dafa mel ni sax dafa gis affaire bi quoi dafa gis euh, li mu ne saytaane dafa bëri doole léegi ñu demaat ci maanaam am na tey koo xam ne tamit sorante wu ngeen yenn dëkk fii mu ngi dëkk Mbour Bombardier tey moom moo nekk roi des arènes ñàkkoon ko jotaat ci loolu nu ko Papa Robert gisee non ci mbër yi la rek ah mbër yi la rek ci mbër yi la parce que xam nga mbër yi mbër yi dañuy iñaante léeg-léeg nga am combat euh, ñu dimbale sax duñ la dimbale parce que mu ngi seet ne kii moo ko dimbalee def may rew quoi te loolu demul noonu xam nga yi moom dañu day war quoi dañu léegi làmb ji xale yi ci nekk di ci bëri ñu ngi jot a xam ban mbër nga ci gis boo xam ne wër na la kii moom mën na dem boobu làmb fi mu nekk nii. Hmm. man de xam naa moom suñu xale yi fii daal fii ñuy bëre fii ci suñu dëkk bi fii. kii daal euh, suma doom bi daal. moom la kii men mais gisuma keneen am na keneen ku doon ku doon bëre mais moom gis naa ko dégg dafa am histoire ak ak promoteur yi quoi. daal xale yi daal man daal di laa fi gis daal. Mamadou laa fi gis parce que mbër yi moom. ñu bëri ci mbër yi mbapat la ñu kii kon daal fi mu nekk nii boo amoon looy tàggoo waa Sénégal ak sa doom yi la seet si woon tey moo muy Babacar nekk si Babacar Diome si kàddu gi ak Mouhamed Dieng si caméra bi loo ñuy dénk ak waa Lutte TV yëpp ñu lay seetaan. di ngeen di sonn parce que ku nekk bëgg na studio euh, kii quoi mais ni ngeen def nii baax na trop c'est normal moom kon yal na yàlla fay te ngeen gudd fan gudd fan te moytu saa saa yi